nopp dalatu na ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci jàmm ji il foog nga koy amee abonné leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko ba ñëpp am jàmm. d'accord monsieur Habib El Habib euh, Tounkara yaakaar naa ne duñ la tey ci temps bu bëri euh, parce que euh, bu ñu xoolee tamit ci. bërëb bu sell ba di Touba Mbacké ginnaaw rek ñuy euh, ziyaare waat tamit di ñaanal xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi yépp euh, euh, Habib gis nañ Touba tam ba léegi inondation bi foofu ci côté boobu tam euh, boobu ba léegi dañuy gis ni bu ñu xoolee at bi weesu at bi dafa gën a ñëw gën a bëri doole comme ci wàllum ndox mi ni ñu ko waxee euh, ñu gis tamit geste bi nga xam ne saa su ne euh, Serigne Mountakha moo ngi koy def débloqué millions yu bëri koy def teg ko ci table bi ngir rek sinistre yi tamit bu ñu xoolee ci kaaw Touba Mbacké gis nañ bi fleuve bi débordé na mais bi gis nañ Touba tamit gis nañu moment bi nga xamante ni jéey yi fa am ba ay tamit noo mën jàngatee li li ni mel ndax état boo ci gis rek bu ñu ñëw bu ñu jàppee ni solution war na am ba léegi rek trouvé gu ñu solution. waaw xam nga dafa am euh, lu xew. muy li xew mooy Touba dëkk la boo xam ni mm-hmm. boroom Touba da ko liggéeyal boppam aaral ko boppam. Mm-hmm. am tey représentant ya fa nekk toog fa ñuy doole di siyaar sëñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides te di ñaan. lii bañ a amati biir Touba ndax metti na ba fu mettit yam ndax man dafa am loo xam ne touché na ma trop bu yàgg ba léegi lépp lu mun ti xew sëñ Muntaxa day yëkkati ay million yu baree bari def ko ci ak lu mu mënti doon moo xam feebar la moo xam safaan ba la moo xam mën bi la waaw donc sëñ Muntaxa rek ci boppam joxe na directive mm-hmm. joxe na benn système de politique de développement boo xam ni ñiy gouverner war nañu roy ci loolu ngir mën a def ay jéego ba nga xam ni Touba li fa am ni bañ fa amati parce que dafa am lu ñu naan cartographie cartographie kooku xamul maanaam politicien laa diw fee la far déedéet loolu mbirum science la yoo xam ni dañu xool satellite bi nii la ah béréb bii kat war nañ fa tabax béréb bii kat kenn waru faa tabax ndaxte fii kat dafa nekk ban boo xam ni maanaam ndox mi euh, ban bi du ko téye. Mm-hmm. fii dafa nekk béréb boo xam ni ndox mi du fa taxaw. alors donc cartographie yooyu. Mm-hmm. ak géologue yooyu manqué wuñu ci Sénégal. alors ñooñu bu fekkoonte ni dañ leen di associé ci politique de développement. Mm-hmm. ni leen lii nañ leen toog xool naka la ñuy def ba lii bañ a amati. wala boog bu dee am tam du metti d'accord kon lii doon na saafara lu bari. mais nag tant que bàyyiwuñu diw fee la far diw fii la far. day répété wu waat rek waaw problème Touba nag dafa nekk loo xam ne dañ ko war a régler définitivement ah, benn yoon bu jeex parce que kenn mënul nekk naan tey problème am na mm-hmm. suba ñu ne ndox manqué na fii suba ñu ne courant manqué na fii tey ñu ne mënd maa nga fa mm-hmm. donc lii il faut que ñu toog waxtaan carte sur table mm-hmm. laaj xalifa bi lan moo ciy xalaatam ñu woo techniciens yi techniciens yi toog gouvernement bi wax ñu wax ci lan lañ ci war a def ba nga xam ne lii dootul am ah, mais tant que loolu defuñu ko déedéet mbir mi day def nii rek. d'accord di tàggat témbe rek. d'accord jërëjëf monsieur Habib al eh, monsieur El Habib Tounkara jërëjëf ci eh, sa teewaay itam yaakaar naa ni itam ñu ngi masawu mbooleem ñi nga xamante ni itam ndox mi eh, laal na ci mboolem gox goxaan yi nga xam ni ñu ngi fii nga xam ci diwaan réewum Sénégal di leen masawu bu baax a baax a baax tey di ñaan yàlla itam yal na yàlla rek yombal lépp li nga xam ne solution bi nga xam ni ñu ngi taxaw mbir yi gën a gaaw mu gën a gaawee itam ni ko waxee waaye itam muy ndox mi jël na surface bu bari boo xoolee ci diwaan yi nga xamante ni tudd nañu ko tout à Euh, waaye itam ni ñu ko waxee gis ngeen itam ci Touba Mbacké itam euh, gis ngeen dëkkuwaay yu ci bare bare sinistré itam dañ leen mujj génne itam euh, seen dëkkuwaay itam logé leen fi nga xam ne waaye yamuñu foofu itam ñoo yëkkati ay dund diwlin ak lépp li war rek ci wàllum dund xalifa bi ak ñi mu ci àndal dëgg-dëgg mu jiite ci nag ñu ngi def seen taxawaay seen kem kattan ñu ngi koy ñaanal bu yàgg loolu Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér monsieur Labib Tounkara dañu lay bàyyi nga daaneel kàdd bi lay tàggatoo waaw li may tàggatoo mooy état du Sénégal lay ñi fi nekk jiite état du Sénégal 18 millions d'individus moom lañu jiite. Mm-hmm. nañu jël seen ay responsabilités boo ko defee nañu génne xaalis bi ñu war a génnee mm-hmm. woo experts yi ñu toog waxtaan ak nit ñi fépp foo xam ne zone inondation la ndox mi da leen di sonal. Mm-hmm. ñu xool ñu régler problème bi benn yoon moo gën. tant que defuñu ko nag ci ay jafe-jafe rek lañu nekk. lo ci loolu it maa ngi dolli ñuy dolli di euh, gërëm sëñ Mountakha Mbacké. di ko dolli ziyaare moom mi nga xam ni ba mu toogee ba tey noppalu ko lu xew loxoom ma nga ca lu xew loxoom ma nga ca loolu rek exemple la pour développer un pays donc euh, sant yàlla tey ñaan yàlla lii bañ fi amati. amiin yaa jërëjëf jërëjëf euh, monsieur euh, Mouhamed El Habib Tounkara ñu di ko santaan bokk rek di leen fàtte rek moo nekkaatoon tamit suñu gan fii ci jàmm ji info di président AMDS à coalition Natal Sénégal créateur et manager du centre de recherche sécuritaire pour le développement El Hadji Amadou Niania Tounkara